Bassirou Diomaye ñu ngi ko jàpp dafa def outrage à magistrat man délit bii sax dama gis c'est un délit qui est parce que outrage à magistrat kat nan la ko outragé ban magistrat la outragé Bassirou naa énoncé tour personne yemul ci loolu soo defee outrage à magistrat magistrat moo koy constaté magistrat dafa lay jébbal beneen mbokk magistrat pour mu àtte la mais délit bi il n'est pas juste mun naa commencer nga tooñ kenn une personne neutre war la àtte mais la corporation sociale mon lay atte délit bii délit bu ñu war donc may leen wax nag ne voilà une personne qui qui qui qui vit dignement sa prison dégg naa fi benn chroniqueur temps yee buy tappale si télé na eh, am na ñuy jooy ak am bon man xaw man fekk mo nak heureusement gisuma koy jooy ak man ñu fa nek ñep ay nit yu digne lañu ay nit yu sérieux ay nit yoo xam ils vivent avec avec piété et foi seen incarcération ñu ci bari tok fofu ak gën la yamalé ndax ñu ngi def ci toog bi li nga xam ne bu ñu nekkoon ci biti mun naa bu ñu ko def gis naa fay xale yu bëri yoo xam ne commencé fa jàng alxuraan ñu amoon ñu fa daara foofu ci biir kaso bi créé fa suñuy daara chaque semaine ñuy wàccee ñaari yoon kaamil dañuy séddale jukk yi ku nekk jël ay jukk yi ba si Bassirou Diomaye Faye day jël ay jukk jàng ko andi bosam ñu koy séddoo di ñaanal dëkk ñoom Cheikh ndeysaan xale yu baax ndeysaan ñoom ñëpp ñoom ngañ ñoom ñëpp àndandoo ñi jàng alxuraan chaque mardi ñu xat xatmu chaque vendredi ñu xatmu alxuraan déjà lii tawféex la ñu si bëri si ñoom bañ nekkee si biti daaw ñu ko def am si ñeen ñee xam ne mënuñu woon sax liir alxuraan daara ja foofu ñun jàngal leen liir alxuraan ñu ngi commencé téye alxuraan di ko liir maa ngi siy nuyu ñoom Babacar njaaye donc euh, bu GPS injustement tamit arrêté un un jeune extraordinaire nit ku yiw nit ku courtois nit ku yaru nit ku baax dem tamit il vit dignement sa prison donc kaso dëgg yàlla

Euh, pour l'histoire et pour la postérité man commence naa si def ay bind parce que épisode la bi comme nous dëkku tubaab bi di wax affaire de la commune wala affaire Dreyfus wala wala nangam ak nangam wala euh, la révolte Nous bind ci xam nu mu demee woon la folie euh, de Macky waroon ci bind si ñaari ati, wala ci ñetti at yi li mu def donc wax dëgg yàlla lii daal mooy li nga xam ne bëggoon naa ko andi comme témoignage di feddaliwaat sama kóllëre ci réew mi ñun dañoo bëgg Sénégal